tegte ma wal fajri mo ñëk tax ma ñeme micro ndax moo ma jox bref dama breval ba def France mu def olof communicant la bala moo créé télé agence de communication ñëk créé muy d'accord di gañe ay sondage yor agence de publicité Barthélemy Diaz politique mmh. xaalisu politique moo ko ngénte papaam c'est pas n'importe qui Barthélémy Dias bàyyi fi papa, dem parti socialiste bàyyi fi libéralisme son père est un pur produit oh. du libéralisme pur et dur que je connais très bien mais sans papa ma connu. nuyu Barthélémy Dias fi papa. Mhm. dem tan, lu gën a dem su socialisme su yi nga ne socialisme dañoo xew yi xale yi bëgguñu ne kenn faalew leen battu dem fa

Barth bàyyi loolu dem taxaw jamono nga xam socialisme le parti socialiste n'était pas attractif. hmm na xëy na qui a rajeuni l'image du parti socialiste il l'a relifté am courage dem fek ay mastodonte mu ñëw Barth le problème qu'il avait c'est le problème de Bougane moy communication mais mu reyante ko ñàkk ko. am na lu ba tay tay maire Dakar. Mhm. mais maire de Dakar. mais moi vice président du Sénégal mais vice président du Sénégal. maire man pas mon ami on a on se parle pas Vous man j'attends de lui qu'il prenne ses responsabilités mhm. c'est un homme politique pur et dur qui n'a pas foi aux yeux qui a appris énormément de choses à Ousmane Sonko Bac c'était le maître à penser d'Ousmane Sonko moo ko may fit dooleel ko dëgëral ko appareil Ousmane Sonko foog ne moom la am batt bi mu yor moo ko ëpp te Sénégal fu mu toll nii ku amul fit dama naa acide nga dee ku am fit moo koy Sonko fit la war ni bien que fit boo xam ne je mets les guillemets ndax fit en réalité day bu bu ne amuloon armée Non, nappe nappe bu nekkuloon lu muy nappaate du agsi fii mu mais je dis tey man si ni ma compté c'est est Bougane c' est Barthélémy qu'il prenne ses responsabilités parce que nak, Barth si je sais qu'il ne doit pas sucer laurier parce que c'est très bien que ni, bu ñu paree ba li jëm seen affaire ah, kii si mon lañ parce que nag xam nañ ne seen concurrent bi gën dangereux bu gën grave je sais pas bu gaanee hein. c' est Barthélémy Diaz pour l'instant ñoom yóbbu nañ ko aw non yóbbu nañ ko àdduna. parce il n'est plus électeur. non il n'est plus majorité amul. il n'est plus électeur. ba pare batt batt te batt nee naa à la politique dans l'ADN il sait que c'est une vraie cible ñoom c'est Barth ce n'est pas Bougane c'est Barth donc je sais que Barth tout comme moi il va vendre extrêmement cher sa peau et Barth est quelqu'un même s'il s'il veut le sortir du jeu comme ça Barth est un, un excellent trouble-fête qui va leur pourrir la vie ndax bat, batt bu fëggatoo je te dis non bat, bat, bu fëggatoo Ousmane Sonko waaf ndax Ousmane Sonko nag wax dañu fàtte Ousmane nak ñemewul batt jëm nako ko fi song ñaari yoon batt moom mu génn ci benn minute batt yobu ko hein man dama ne lii yàlla moo ko indil pour que chacun apprenne à se déterminer et surtout à être dans le vrai mhm. bo gëmee Ousmane Sonko na na te yàlla tax nga teg ko ci ay conviction moo fekk moom mu tegal ay argument yi léegi ci ay conviction Ousmane Sonko bu la à l'arrivée il ne le fait pas nga am ngoru xam ne kii du Il dëgg te nit nit nit mhm. que les gens les politiciens apprennent à être vrais mais que les Sénégalais aussi le peuple les électeurs qu'ils apprennent aussi à choisir les gens selon des critères d'éthique et de morale

parce que yéen ñëpp nek nekk nekku leen ci ay posture ak ay position yo xamné da ngeen au centre du jeu donc devant de la scène vous avez cette occasion là parce que ce pays là nous appartient à tous il n'appartient ni à toi ni à Ousmane Sonko encore moins à Karim Wade il nous appartient à tous donc ñun ñep ñoo waron ñoo ñoo war a jógandoo législative yii ni wa France jógee def barrage